taamala yoonu gàddaay kii di Fatou Fall num def ba mucc ci gàllankoor yoon bu raglu xaaxaan xiif rëccute ak nammel ci réewam. soo nekkee si biir gaal bi li di nga yëg ay métit parce que ñun si biir gaal bi la ñoo nekk dëgg gaal bi di nga fa feebar man maa ngi nii pause day bi dama feebar full day lekkuma. bi muy dem kay moom fiil naa ko de ma xam ne xëj na dafa bëgg a tekki moo tax parce que Europe moom soo gisee ñëpp di fa dem pour tekki moo tax. nima ma toogee nus suma ma ngee neer gal so si neke sa kaa yaa ngee dem si joni bu sori foog nga nekk di neer surprise na parce que moom dafa nekk nit ne nit yu ruskat la te ñemewut tamit moo tax man tam bu ma dafa dem si yoon bi surprise na, tamit suma helbi bi tamit toogutoon bu ma yëgee ne kom gal bi dem na te si yooni ndox lay nekk di dem daa neka ma ngee wuccu sona na si gaal bi foos de moom dama over soona dama sona ta fale far far. ma dajee moom si tanduku la ma wax faafale ut fii ma ne ko fu ngay dem foofu léegi lay dem pour dimbale suma yaay. xanaa guddi bi daf dee métti moom trop suñu jigéen ñi. easy wut toon moom easy wut because eh, man moom man géej naa nelaw depuis début di paatee mu dem. biñ génnee baara di dem ñu ngi am Mauritanie Mauritanie foofu la dem after yi ñu gis ne comme am na gaal bu am accident soo óorut pour ñu war ñoo bàyyi ñun tam ñu continuer noonu la ñu gars yi métti woon na nag métti woon na torop xalaatoon naa ko parce que loolu mos nit soo juree sa doom nga yar ko di nga xam ban façon ngi jikko ban façon ngi nit la. dajale neen xaalis foofu def neen li ñoo suñ mobile yëpp leen dajale pour jox ko gaay rek ndax ñu mun ñoo bàyyi ñun ñu continué. xeexuñ xuloowuñ saaguñ leen dañ fa nekkoon rek man moom jooyuma ma defuma dara. waaye am na si ñoo xam ne ñu ngi nekkoon di jooy. lijjanti ko ci épisode bii di Tamala si série su gàddaay yuñ leen di indil. koleel sa bët ci sa télé seetaanal ma Fatou Fall mu nettali ñu jaar-jaaram dinañ leen ko indil fii ci GTTV samedi. fukk ñenent ci weeri novembre. 2020 fàttalekul ne Babylone mu ngi fii ci Jolof waaye nag ci bokk gome taamala yoonu gàddaay. ne Gamsobis in focus. With Kalilu Banjang every Saturday from 8 to 10 p.m. You want to know about the Gambia entertainment industry? You want to know the existing policies and programs of the arts and culture sector. You want to know about the governance and management of the arts associations. The program will throw a fresh light on the entertainment industry in focus. We will touch so many angles about the cultural sector, the opportunities and challenges, and interrogate them and most importantly, offer solutions. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yeeg xarit yi dal leen ak jàmm ci euh, xibaar yi biti réew yi file ci Gambian Talents TV. xibaar yi dañu koy doore ak njiitu réew bu Sénégal président Macky Sall daal dina rek euh, def ab tukki bis ni tey jile pour rek dem fale ca euh, France la ko sabab nag mooy njiitu réew mu France di Emmanuel Macron moo ko fa rek daal di woo ngir ab ndaje mu ñu war a amal suba ci alxames ji euh, ndaje bi nag li ko sabab mooy xool nes def rek ba jàmm dellusiwaat ci réew yi ñu gën a waxtaanee rek nes def ba indi li nga xam ne rek moo di saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne réew yooyee di France ak njaboote ñu ngi koy rek daal di euh, dund. ñu wax ci leneen Idrissa Seck ndaamal Kajoor ginnaaw rek ba ñu ko tabee ci euh, place bi la di euh, économique euh, conseil conseil social ak environnemental ginnaaw rek loole ak coow la ca wundu yëpp moom mi démb rek la daal di def li nga xam ne moo di génnam bu njëkk ca wetu rek ki nga xam ne moo di président mag Macky Sall ñu àndoon rek ci bis bi nga xam ne moom leen jagleel ñi nga xam ne ñoo di rek takk der yi muy armée bi ñu ko doon màggal des na. def na leneen it mooy ñi nga xam ne rek moom la wutu foofee ci euh, conseil économique social ak environnemental foofee euh, nga xam ne kii la wuutu di Aminata Touré daal dina ko rek euh, dàq ñëpp ñi nga xam ne foofee lañ nekkoon di rek liggéey. ñu wax euh, ci leneen dañuy des di wax ci politique ba tey abdoul mbay nekkoon fi rek euh, jëwrin gu njëkk euh, ci nguru Macky Sall daal dina rek wax démb ginaaw ba ko dalalee télé di TFM ci émission boobu di déclic wax na fa li nga xam ne rek noonu la gisee tolluwaay réew mi Sénégal dafa rek di nermelo loolee sabab rek ñu bëri di tukki ñu bëri di jël gaal ba sax di ci ñàkk seen rek bakkan ndax nee na xale yi amatuñu yaakaar benn ci Sénégal wax na ne li ko dalee ci 2012 euh, euh, ba deux ba fi ñu toll nii euh, Sénégal économie bi dafa gën a rek sooxe dafa gën a yàqu li ko war a rek mooy njiitu réew mi fi nekk di Macky Sall nekkul ki nga xam ne rek moo war a mën a soqali li nga xam ne rek moo di koom-koomu Sénégal. ñu wax ci leneen ba tey Guy euh, Guy mari sañaa nekk ab activiste euh, di ab xeex euh, xeexkat bokk ci rek mouvement France dégage moom mi la nag daal dina rek moom it wax na lu ñuy xaar ci njiiti réew mi nekkul ci wàllu politique wala ci wàllu galgalanteeg ay kujeeg politique gi li ñuy xaar ci moom mooy mu njàng mi ndaxte Sénégal soxla na seen système éducation bi ñu daal di ko rek defaraat soxla nañ courant bu doy soxla nañ li nga xam ne rek moo di ñu wutal ndaw ñi am xëy ndax loolee moo tax ndaw ñi di jël rek yoonu gaal gi mbëkk mi ngi euh, ba ci ñu baree bari di ci rek ñàkk seen euh, bakkan euh, fi ñu toll nii Sénégal soxlawul politique li ñu soxla rek mooy ku leen mën a rek fajal seen i soxla bu ñu sukkandikoo rek ci gi Marius Sagna ñu wax ci leneen Abdoulaye Wade nekkoon fii njiitu réew mu Sénégal moom i daal dina wax rek li nga xam ne moo di réellement ministère bi nga xam ne Macky Sall def na ko daal di coppite indi ay coppite yu yees ci gouvernement bi ñaar ñaar fukk ak ñaar ñu tëjee ko ak tàggat yaram tey jilee ci ngoon bu euh, juróom benn bu juróom euh, ñeenti waxtu rek jotee euh, Sénégal dina rek daal di dajeek ñi nga xam ne rek ñoo di Guinée Bissau foofee ca stade Lat Dior bu rek Thiès ngir rek mën a xëccoo ñan ñooy rek mën a daal di bokk ci jongante yooyu xew fale ca Cameroun bu mille 2022 jotee mbokki li moo gënoon fës ci xibaar yi dig leen daje beneen bu ci yàlla àndee buri buri borom mucceek muccule am na ko yal na ko def ci yéen jërë ngeen jëf